na ministère yi tourné si ñoom fay leen seen xaalis ñoo mën ñu faj correctement. mbir mi commencé na indi jeexital ci seen yaram te lenn rek la ñu bëgg mooy ñu jàppale leen te régler mbir mi bu gën a gaaw. mi ngoog Léopold euh, seetlu gi benn la ay euh, woy feebar lanu wala yooyu wopp loolu nga xam ne mënuñu xaar lu yàgg en ndax li leen a dal muy ay hémodialyse yi nga xam ne euh, dañu ci daanaka dañ ko yëg bu ñu toogee lu yàgg fajuñu. xam nga mbir mi yàgg na. waroon nañ koo mun a anticiper bu yàgg mais la plupart du temps ñi nga xam c'est des hémodialysés dañoo soxla à tout temps ñu leen di dialyser ak yooyu donc dañu waroon mën a jël li nga xam ne ni mooy euh, luy luy luy fagaagal parce que su ñu toogee ay 48 heures ak yenn yooyu mhm. sans ñu hémodialyser leen sans ñu jaliser leen ça va être très difficile de leur côté parce que mënoon nañu jël par exemple euh, beneen endroit boo xam ne ne moo gën a adéquat pour que ñu yóbbu leen fa ñu mun leen euh, kii mhm. mais la plupart du temps suñ ko yóbboo ci à l'air euh, à l'air pur comme ça comme ci kara fu ñu nekk nii actuellement nii mhm. daana si benn hangar la je crois savoir ne que il valait mieux que ñu wut beneen endroit plus approprié mhm. avec des médecins yoo xam ne ne tamit de grande pour que ñu ñëw assister leen parce que euh, dafa di feebar boo xam ne ne feebar bu am dayoo la boo xam ne ne te dafa gaaw a yóbbu nit mm. donc loolu yëpp wax waroon naa def ba nga xam ne ku ci nekk nga mun a maanaam def sa stratégie nga élaborer ko de sort que ñoom hémodialysés yi saay bu ñu ñëwee rek ñu jël leen en charge mais gis nga leen ni ñu ngi toog ñu noonu di xaar peut-être que ñoo xam ne ne dina ñëw pour faj leen kañ lay doon loolu mooy problème très bien ah, ci jamono jooju Léopold Tamba liggéeykatu autoroute du Sénégal yi ñoom nag ñu ngi gën a wëyal seenuk euh, grève bi ñu dooroon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeruk avril bale ñu génn mu ni kon ñu tënku ci syndicat national des travailleurs des autoroutes du Sénégal daal dañuy déposé wala béjji seen i naqar ak jafe-jafe ci taabulu autorités yi ab plateforme revendicative bu nga xam ne lu ñu ciy laaj lu leen lu dul ay conditions liggéey yu ñoŋ ak itam payoor gu itam nga xam ne daan ci mën a gis seen bopp dañ ciy teelu secrétaire général du syndicat boobu lee di wuyoo ci turu Alpha Diaw ñeenti at a ngi nii ay condition yu méttee méttee métti métti la liggéeykat autoroute Ila Touba yi di dund CDI buñ ko signé depuis le premier mars ba tey jii gars yi nit ñi mënuñu am lu ñu naan retour de contrat ndaxte contrat yi yeggagut fu mu war a yegg ci inspection du travail dañu am suñu mbokk yi nga xam ne dañoo nekkoon ci autoroute bi di liggéey fukki nit ak benn lañu dañoo xëy ñu war a renouveler contrat yi ñu ne leen yéen bokk leen renouveler leen seen contrat te xamuñu ñooñu lu ñu def loolu nag dëppoowut ak yoon ñaari yoon CDD nga war a am CDI ñi nag bii mooy ñeenti yoon la ñu am CDD beneen bi liggéeykat bi weer bu jot dafa am lu ñuy dagg ci yow ci sa salaire ku feebar ku nekk ci ngay fajoo bu ñu tàmmali ak léegi si téeméer yu ne maanaam ñi ci bénéficier ci taux de remboursement motul ñaar il faut que problème bi mu jeex une bonne fois pour toutes mi ngook ñu àddu wax ci euh, bëccëg bu ñu jagleel ci àdduna bi yëpp wàllug euh, euh, kon liberté de la presse ñu célébré ni ki tey ci ñetti fan ci weeru mais thème bi ñu ci tànn nag mooy liberté d'expression naka la ñu koy tëggee ba mu mën a méngoo ak ak doomu aadama ci noonu itam jàppale na institut Panos UNESCO daal dina ñuy woo ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee les professionnels de l'information ci ab panel bu yaatu ngir waxtaane ko classement du Sénégal nag ñëpp xaw nañ ko naqarlu mi ngi toll jamono ji ci téeméer ak ñeenteelu euh, place bi Reporters sans frontières moo jaar ci yulek étude di ab place bu nga xamante ni nii correct ci boppam daal dina koy ñaawlu euh, conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias compte rendu Abdoulaziz Sow Dabar Germaine Dior xarañteefam des ci wàllub respecter liberté de la presse dëkk bi bile perte ci lu tolloog fanweer ak benn place bu ñu ko gam-gam lekk rapport horizon sans frontière bu weesu bi tax ba koret di ko naqarlu boo méngalee ñaari at yi muy deux mille vingt deux deux mille vingt trois juróom fukki place ak juróom la ñu ñàkk. mu doon lu rëy loo xam ne vraiment ëllëm nañu te li ko mooy lu xew rek ñu yóbbu si yoon ne rap ci kaso bi. donte liberté de la presse mu ngi fi waaye lu bëri des ngir ñu jëmmal ko. ñu ngi koy nax saayal parce que nax saayal mooy lan boo xoolee dépénalisation de délits parce que Sénégal dafa lank ba tëdd ne du ko def dépénalisation mooy taskatu xibaar si wàllu liggéeyam kenn waru ko xokkatal. foog itam média yi sàlloog éthique ak déontologie rawatina tàggatu bi waaye fës mooy doyen yu bëri war nañu gannaaw rédaction yi. buñ la tàggatee si l' école boo ñëwee si rédaction bi dañ la war a mais malheureusement ñi la war a encadrer kenn nekkatu fa. il faut nit ñi di des si rédaction yi mën a encadrer xale yi ñëw parce que xale yi dañ leen encadrer moo tax ñuy def yenn njuumte. bokk na ci yeneen recommandation yu tukkee ci bi lépp ndaje mooy ñu xolaat anam bi ñuy jébbalee fréquence yi waaye itam ñu am justice bu responsable. muy muy muy bëccëg bi ñu jagleel wàllu liberté de la presse ndey Fatou Ndiaye naka nga jàngatee classement wu Sénégal jamono ji nga xam ne euh, Horizon sans frontières daan na koy publier. man de li may laaj mooy yan critère la. Euh, ci lan la ñu taxaw sukkandiku ci ba ne ñun perdre nañ beaucoup de place parce que nag Sénégal bu fekkee buñ ci jëlee ay quelques exceptions les cas de deux ou trois journalistes man pour man la presse mu ngi ci liberté ci li muy liggéey parce que ànd nañoo seen sago bàyyi nañ leen ci seen nafs donc nan la ñu def ak fan la ñu jaar ba ne ñun bi place dañ koo perdre man jaaxal na ma. Mhm. parce que Sénégal journaliste deewagu fi sur le terrain. te loolu ñu koy gis seeni bakkan mhm. ba ci guerre russe ak euh, Ukraine bi am na mhm. ay journalistes américains européens yoo xam ne dañu ñàkk seen bakkan ñoom loolu ñooñu yan place lañ leen di jox pour man il faut pas que ñu exagérer avec ces chiffres surtout nag euh, organisme international yi hmm. yenn critères la ñuy basé wu bay def yenn jugement yi di joxe yenn classes yi comme doing business ak yeneen ak yeneen doo mën a comprendre pour man daal Sénégal li ñu war a def mooy gën assenir assainir le milieu de la presse jéem a xool suñu corporation bi nan lañ koy gën a dëgëralee ba dara du jóge ci biti di ñëw di ñu faagaagal et aussi ñu xool précarité bi yenn hmm. jafe-jafe ak coono mi ngoog ñu bëri jàpp nañ ne Sénégal bu dellu tey ginnaaw ci yooyu les classement ni fi journaliste yi di dundoo jamono ji mooy ñu ñuy tëj kaso ñee nañu ñuy persécuté euh, loolu jàpp nañu ne waroon nañu kon séntu bile classement euh, tukkee ci Horizon sans frontières waaw euh, classement bi tukkee ci horizon sans frontières mënees na ñoo jàpp ne kenn xamul euh, yan argument la ñu utiliser ba maanaam pour mun a jàpp ne que Sénégal dafa def un recule boo xam ne ni bu garaaw a garaaw te je crois savoir ne que la plupart du temps saay boo gisee rek mu am problème au sein de la presse c' que ñu ngi waaj a dugg ci ay élections ci élections yooyu nag ngay gis ne la plupart du temps ñuy jàpp yenn journalistes yi parce que peut-être que tamit dañuy def seen i liggéey mais peut-être pas à un parti boo xam ne moo nekk dans l'opposition donc instant boobu la ñuy joxar bi ñii di journalistes yi même s'ils font leur travail de la manière la plus euh, adéquate possible mm-hmm. mais malheureusement day am tamit li nga xam ne ni ñii nekk au pouvoir nekk des politiciens la plupart dañuy bëgg a créer benn euh, benn benn benn kii benn atmosphère boo xam ne ni bu xaw deux dix ba nga xam ne journaliste bi peut-être que il fait très attention ci li muy wax parce que il y eu quelques mois de cela avant que ñuy dugg sax ci kii li nga xam ne mooy euh, élection yi la plupart du temps les journalistes dañuy def seeni propos et que en ce temps-là doo dégg ñu bëri ñoo xam ne ne dañ leen di teg loxo mais une fois que ñu dugg si si li nga xam ne day jege rek li nga xam ne moo di élection yi nga gis ñu changé ñu commencé di jàpp yenn journalistes yi mmh. yóbbu leen en mettre dans une position boo xam ne pas adéquate du tout pour leur permettre tamit ñoom tamit xam nga bu ñu waxul te joxew ñu information te xam nga ñi nga xam ne ñoo di askan wi di taataanu xibaar ci ñun ñi buñ ñu déggul dañuy jàpp ne que lépp yomb na te fekk lépp yombul mhm. waaye dafa am benn climat de terrorisme boo xam ne dañ koy def sur la presse et que loolu mooy tax la plupart du temps ñenn ñi ñu leen di jàpp di leen yóbbu Sénégal mu deltu ginnaaw ci fanweeri place beeg euh, benn jàppale ne ci classement mondial liberté de la presse reporters sans frontières euh, évalué nañu pratique gu journalisme en tout ci àdduna euh, bi yëpp bu dee ci Sénégal moom jàpp nañ ne journalistes yi dañ leen di menacer di leen agresser waaye itam di leen emprisonner ñu teewlu ci Mamadou Fafana. ne ci seen site tas ko fépp tamit ci réseau sociaux yi Porteurs sans frontières ci njëlbeen mi nga xam le ne tey solos yi nga xam te ne nii ñu ngi koy màggal li nga xam te ne nii moo jëm ci wàllum liberté de la presse lu jëm ci suñu réew nag moom ñoom la ñu jàpp daal moo di ne Sénégal daa daanu ba xalangu daanaka ci mbir mu ni mel